vous de moments euh, de joie de bonheur et surtout beaucoup d'informations comme d'habitude waaye xam ngeen fu ñu koy dooree tey mooy li nga xam ne mooy riir Sénégal fu mu toll nii depuis maanaam samedi jàpp dimanche ba tey jii lundi ji ba léegi coow laa ngi gën a yokk mooy li nga xam ne nii moom moo xewle fële sa Kaolack sa Kaolack euh, depuis euh, samedi ba léegi gannaaw wala jàpp sax dimanche mun nañ ko wax benn góor jigéen bi nga xam ne nii mun nañ ko wooyee comme ni di wooyee borom ñaari tur yi li nga xam ni maanaam yóbbuwoon nañ ko Touba daal di koy suul ñoom ñu bañ ñu daal di koy delawaat Kaolack gannaaw bañ ko fa suulee nag am ñi nga xam ne tamit ñëw nañ daal di koy sulli ñu yaakaar ni sulli boobu lañu yem ñu daal di koy yóbbu maanaam sa mbooloo mi yëpp nekk génnee ko almeri daal di koy taal donc taal boobu nag mu nekk acte bi nga xam ne nii Sénégal yu bëri bëri euh, mën naa wax sax presque la majorité ñoo ngi koy ñaawloo bu baax a baax est-ce que ñoom amoon nañ droit lakk ko est-ce que maanaam du yàlla sunu borom rek moo am droit di lakk nit loolu yëpp mu nekk ay point d'interrogation yi nga xam ni ñu bari sénégalais yi ñu ngi koy waxtaanee rawatina yéen rawatina ñun moo tax ñun du si dellu benn yoon ginnaaw loola wax Ouz tey xam naa des def pàcc bu yaatoo yaat si li nga xam ne nii moo xew foofu sa kaw la nan nga jàngatee maanaam ni ni mel. waaw alhamdulilah la ñu njëkk a wax ah. Euh, bañ ko gisee itamit mu suñu xaqulaay taalaa la ñëw ak dëgg tiis nekkoon na ci ñun. Mhm. njàqare yi nekk na ci ñun maanaam yërmande yi nekk na ci ñun ngir lu tax mm-hmm. moo dafa am yoo xamante ni ñun dañuy fàtte ni Sénégal gii ñu nekk mm-hmm. maanaam utiliser wuñ charia de un te dëkk boo xamante ni nous sommes laïcs mm-hmm. su euh, te moo man su ma demoon bay xeex góor jigéen wala leneen ca ba muy dund laa koy xeex duma xaar ba mu dee su ma leeree ni kii lii la na ko leer na buy dund moom mhm. dañ koy lijjanti maak moom su ma ko xamee mhm. waaw duma xaar nag ba mu dee mhm. may taal ak di jaay bari wax ak di dugg ci sama yoon lu mu nekkul teg te ñoom ñëpp ñu ci bari ñiy def direct luñ ciy ut vie ñii daw ne dañoo sul luñ ciy ut ay ñoo defoon li nangam sàngam te bu leen te buñ leen nee kirtim dañ leen di tey amul ma dem te ñëw. waaw parce que nag dëkk bi dëkk laïc la. Mm-hmm. moo tax procureur fu mu toll nii waaw di def ay enquêtes nga xam ne na si mu daal di. waaw parce que chef de quartier bi génn na wax. Mm-hmm. nee kii à 300 mètres la dëkkoon fii. ku dem ba am kër. Mm-hmm. ku dem ba am kër fenn yàggoo foofu. dëgg la ku dem ba xamante fa ak yàggoo foofu. nañ waxante dëgg. man su ma doon wax ak góor jigéen ba ma koy def lu métti wala nangam sàngam ca ba muy dund la bu ba muy dund bu ma xoolee su ma waaye yow waaye xaar bam dee ma ne damay jaay ngóor loolu yëfi tapet la mm-hmm. yëfi ragal la mm-hmm. moo tax euh, kii di nga xam ne ay borom xam-xam lañ ñu nekk daal di si réew mi ñu bëri tamit ràññee leen ku si ni sëñ euh, Maxtaar moom am na say kàddu yi nga xam ne nii yëkkati nañ ko mu nga ko mënee déglu peut-être après dinañ si am yi nga xam ne nii dinañ si leeral bu baax a baax est-ce que lu ñu def yoon la ou ku ñu suul ci armeel ñu tuddule borom ñaari tur yi la ñu sulli ko lakk ko mu jur nag polémique ku nekk ak na koy jàngate ñu bëgg cee dikk rekk indi ci yenn leeral yu xaj ci vidéo bi li ci des bu laajee yeneeni jataay yu nu am gën ko mën a yaatal njëkk wax mooy li xew lislaam àttewu ko maanaam ñu jëfandikoo lii nu jëfandikoo jëfandikoo ko ci turu lislaam mhm. du lislaam moo dem ne sulli leen néew bi lakk leen ko loolu mat naa xam mais àtte li may tuddee àtte mbedd mi la àtte mbedd mi bu ñu tegee àtte lislaam lale teg àtte luwaay yi ñu tëral lale mbedd mi àtte bu àttee rek pëccëxoo dafay am te mooy suul lañ ko ñu tudd ci tur woowu yóbbu ko ci armeel yoo xam ne nii ay nit ñu baax lañ fa suul suul ko fa ñay protéger armeel yooyu ak nit ñu baax ña fa nekk jug jëfandikoo lii nu jëfandikoo lislaam de xam na ngóor jigéen am na ci loo xam ne ci tur la ñu wax góor jigéen fekk col gi la ak comportement bi lislaam xam na loolu àtte na ko baas jëfandikoo na ko ci xadis bi mu xannisiina jëfandikoo na ko ci beneen xadis mu rajilaat mu jëfandikoo ko yàlla rëbb na góor goo xam ne yalbasu libsatal mar'a day sol yërey jigéen yàlla rëbb na almuxannisiina min arrijaal góor goo xam ne dafa jigéen jigéenlu te nekk góor murajjilaat min annisa góor jigéen juy góor góorlu ku ci nekk yàlla rëbb na la kon àtte lislaam ci manière yooyu comportement yooyu bàkkaar bu rëy la bu tolloog rëbbum sunu borom ci bàkkaar yu mag yi la bokk moo ngi noonu nga dégg kàddu yi nga xam ne ni euh, sëñ Maxtaar ñu bëri kenn dootu ko présenté Sénégal si wàllu xam-xamam waaye tamit rawatina maanaam xeex go xeex bi nga xam ne ni moo koy xeex ak borom ñaari tur yi dégg nga lu mu wax maanaam kàddu yi nga ça veut que ñiy àtte tey àtte wuñ maanaam su l'islam tëral dañoo def leen neex. waaw dañoo def lu leen neex maanaam moom moo ngi koy tuddee maanaam àttu mbedd mi mais àttu mbedd mi est-ce que dafa am lu ko indi parce que tey di ñu war a àtte bu ñu àttewulee yoru àtte bu ñu àttee est-ce que duñ def musiba te jàpp naa ne tey jii nii def nañ musiba mu waroon jël jël borom ñaari tur yi daal di koy taal. mbedd mi waruñoo àtte. mais est-ce que ñu waroon àtte bu ñu àttewulee waa mbedd bi duñu ñi waroon àtte ñan la ci lii. maanaam euh, tey jii ñëpp. xam nga xam nga moo lépp balaa maa dee. daa am luy wóor. Mhm. dafa wóor. ngóor jigéen a gën bon ci àdduna. Mhm. waxtaanee ko rek saa ma dérange. wallaay waxtaanee ko rek saa ma dérange safuma neexuma. Mhm. xëy na suñ liggéey la ak fi Sénégal toll ñu war a leeral mais waxtaanee ko man neexuma neexul kenn man man mi wax yow seen tur sax dama ko dul bëgg di dégg ma sax ñuy tudd maanaam maanaam ah, ay waaw seen tur laa lay du ma ko bëgg sax dégg maanaam bokkuñ sax ci sama vie mhm. yal nañu yàlla may mujj gu rafet yal nañu yàlla may mujj gu rafet yal nañu yàlla may mujj gu rafet mhm. amin waaye dama ni nii ñu ko defee du defin wi man rafetluwuma ko mhm. man su ma nee lii nga mu leer ma ca ba ngay dund laa koy lijjanti nee naa la bëri na ñoo xamante ni ñu ngi woon ca taal ba tëddee neen jabaru jàmbur wala ñu ngi sëyee ku leen leewut te dañ leen war a àtte comme noonu bëri na ci ñoo xamante ni bu fekkoon ay jigéen leen tëddee neen ak ay booy te yor tey amee jëkkër wala ñu ngi tëddeeg ay góor te kenn waxu leen ko te bu ñu leen àtte woon tey ñu dee dinañ leen teg ci penc dóor leen téeméeri yar ñii ñu jamata leen bañ dee mhm. doog leen defar suul mhm. dëgg la nañ waxante dëgg. loolu moom dëgg wér bëri dafa fees dell laa lay wax. benn man mii bu ñu ma doon àtte dañ maa war a jam ba ma dee xanaa fu mu ne nii la ma suul. nga maa la ko wax. ni dangay wax dëgg te yàlla tax. loolu yow say wax. waaye yow dama lay wax lu leer. fii du pays laïque. référé wu maanaam seen àtte fii ñun senegal boobu ban tey fan nga dégg mës dégg kii dee na ci ci ci wala kii sàcc nañu dagg loxoom. kii naa ko dafa la amee mais tamit est loolu maanaam tamit euh, du gàcce tey jii ñu ñu ñu ñu ne Sénégal gu dëkk maanaam quatre-vingt-dix-neuf wala quatre-vingt-dix-huit pour cent des musulmans lañ ay jullit lañ. après ñu toog di bàkkoo naan ñun duñu pays laïque. parce que ñu ko mayuñ ñu ko gàcce boobu mayuñ ñu ko ci sunuy maam yi mayuñ ñu ko yow demal assemblée nationale doo foox yàlla nee na doo foox yonent bi nee na di amu fa. amul demal assemblée nationale ay maamu jàmbur ñu xees lu ñuy nettali lañ indi assemblée nationale teg ko fa ñuy fa ñuy fa dogalee ñun assemblée nationale bi waroon am yàlla nee na yonent bi nee na alxuraan nee na hadis bi nee na amu fa ba pare nag ñu mën ñu bëgg a bokk ci yenn yi mënta ne. mais kon ça veut dire li xew ni tey xew ni maanaam ñun ñëpp am nañ si part de responsabilité. muy yow bu mag muy sunu président mooy. nekk assemblée nationale ñëpp ñoom. surtout surtout ñu nekk ci kaw tey suñu ensemble bi dafa waroon am yàlla nee na yonent bi nee na ñu jéem a xool atte charia wala yeneen ak yeneen ñu koy dugalee ñu jéem a xool nan lañ koy defee ba ku ko def dara du la ci fekk ndax li li ñuy wax diine la lislaam la ku sàcc ñu dagg sa loxo ku rey ñu rey la c'est normal ku njaaloo nit doolu ay yar c'est normal loolooyu li am mais mënu fee am parce que fa ñuy dogalee ak di fa jëlee ay décision suñuy kàddu àggu fa fa mm-hmm. man li ma ci déranger mooy ki dee ba pare. waaw man ki dee ba pare looloo ma ci déranger. Mhm. nit ki kañ booy faj dara. pour nit ñi def ko référence xool ko. ca ba muy dund ngay def li ngay def. mais xaar ba nit ki dee. fii ku dee ci loxo yàlla ku dee pare ku ci dee pare nga. pare nga ak nit ñi moom yàlla nga dese yàlla nga dese. ku dee laa lay wax yaaram pare nga ak nit ñi yàlla nga def man nag nit entre nit lu ñuy faj wala lu ñuy tere buñ ko mënta lijjanti entre nit ca ba muy dund boo deewee dañ lay ba looloo li normal li ñu def kan normalul. mais maître d' accord man je suis totalement d' accord avec toi si acte boobu xam ne ñu nga def peut être la plupart gëm naa ne Sénégal yi bëri ànd ak seen man que ñoom ñun Sénégal ñu xool maanaam wàllu borom ñaari tur yi. na ne lijjantee problème boobu la. rey dafa voilà parce que dafa nekk loo xam ne nii. c'est catastrophique parce que man tey mun ma imaginer dafa am yu bëri nga xam ne nii euh, maanaam buñ koy xool dafa dem ba maanaam ñu suñ diine sax wàll góor jigéen mun na mun na ko rey. parce que tey jii imaginer de góoru góor bu ñuy sëy xeetu moo Muhammad sallallahu alayhi wasallam day gën a wàññeeku loolu moom forcément waa bi sax jël benn maanaam ñoom seen xeex sax façon boobu ci la bokk beneen bi tamit mooy nañu wax dëgg yàlla maanaam dafa suturaal nit jël nit lu mu bind yëpp nit moo ko ci gënal alhamdulilah karam naa ba ni dem voilà maintenant nag tey jii est-ce que mus ñu gis maanaam picc ak picc yi ñaari picc yu góor di di seen di seen biir mus ñu gis ñaari mbaam mbaam ak koy wax ne yow comme mbaam xam nga loolu mus ñu gis ñaari mbaam yi nga xam ne dañuy seen donc ñu mën ñu war a def loolu. mu lu baaxul baaxul góor jigéen daa bon. c'est haram haram baaxul bëgguma sax nit oh waay. am na beneen góor jigéen bi nga xam ne ni fu mu toll nii. yu euh, yu xool xool góor yi cootu maanaam góor jigéen a bon ci boppam daa maanaam maanaam maanaam góor jigéen dafa baaxul ci leen bu xam nga ngir la fi woon amoon na fi. Mm-hmm. suñ borom dogal lim dogal ci ñoom. Mm-hmm. mais am na ñoo xamante ni it maanaam judduwaale la. boobu taxul ñuy wax muy nguunu ngaana mm. dafa am na ñoo xamante ni judduwaale la muy ngóonu ngaane ñi nga xamante ni dañuy judd am sexe masculin am sexe féminin en même temps. ok loolu feebar la. Hmm. suñ boobu am na ñoo xamante ni tey dañuy dox comme jigéen te ay góor leen pire. am na am hmm. Sénégal am na ñoo xamante ne nag gars dañ leen di taqal. Hmm. fu mu ne nii moo boo fonkee sa bopp nii. di gomaas sa kanam. Eh. di xeeñ parfum bu neex. di sol yére yu set. jël sa temps di dox ndànk di wax ndànk ngir ngir civiliser ñu ne la góor jigéen nga te alors amul. bu dee jigéen nga toog nii fu mu ne nii maanaam bañ a sëyi ngir principe xam li ngay def nekk ci li nga war a nekk ñu ne génn nga. Ah, lu koy di bëri na fi. bëri yow yow ñu ñu ngi nii ñun sax bu ñuy waxtaan yenn waxtaan ka foree ñu ñu ñu ne.